ca mu ngi noonu asalaamaaleykum mbokk yi ak euh, xarit yi fii ci Lougaré TV ñu ngi leen di nuyu euh, yéen a ngi nii ci seen émission sëyu jeeg ji ci Lougaré TV euh, di waxtaan nag li nga xamante ne nii mooy yëfi jeeg comme dab comme ni ñu koy waxee rek comme dañ leen ko diggee woon te digg aussi digge bor la waxoon nañu leen ci mois de. janvier bi ci année bu bees bi dina leen indi ay ficelles yu bees dàq ay euh, invité yu doy waar ah ay thèmes yu doy waar tamit comme ni ma koy faral di waxee nag plateau bi duma ci wet benn yoon maa ngi ci toog ak sama rak sama xarit sama yaa sama yaa maa lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu tamit bu baax a baax. di nuyu tamit amit téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo siy jékki waaye tamit ñoo safoo tele télé Lougaré TV ah, di nuyu tamit tata asu sunu invité bu jongo mu boobu nee naa ko sa rouge blanc lan la ah, di leen wax yéen tamit jéeg yi bëgg lu baax gis en 2023 bi ci janvier bi en indi indil leen plateau bu espécial plateau bu yanji boo leen gisee macha allah nii ne suñu première émission sëy jeeg ji mm, du ngeen gisee plateau bi ni mu yanjee nii ak mille vingt 2022 bi ñu génnee c'est diamétralement opposé ma leen di wax nag koj leen ko fii ngeen xaar léegi léegi ñu waxtaane ko ak yéen rek na nooy rek na diig. ay a kontaan <laughs> rek di ñëw ci nga xamante ne nag mooy sama invité tey ci ah. Asou <laughs> ngi lay nuyu di la ziar madame Ndiaye. maa ngi lay fay salaamaaleykum. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu Ndeye Marème du nuyu Maya. du nuyu di kontaan si invité bi ngeen ma invité. Mm-hmm. kontaan naa trop. Mm-hmm. ngeen jëm na si sëy jéeg ji ak yeneen ak yeneen ma kontaan ci trop nag. macha allah Astou Mbaye madame jaay ñun ñoo la gën a kontaan ah. yow ñun ñoo la war a delloo njukkal parce que ñun ñoo la ameel njukkal. assistama yaa. waaw loolu tey nag moom. dañoo ñëw rek euh, ubbi bunt bi rek yàqal mu daal di tey jëluñu ci daraay tem mais dañuy waxtaan ci suñu biir. da ciy baax. comme dañoo jóge ci mois de décembre. dugg ci mm-hmm. mois de janvier. Mm-hmm. ñu ubbi bunt bi tey. ubbiwaat sayu jéeg ji tey indi ci yeneen fësal yu bees comme yi ma waxoon rek sànq tey moom dañuy xataboole. Mm-hmm. dañuy xataboole daal ba mu neex. <laughs> maa la wax nii xataboole kon. <laughs> kon tey dañuy xataboole ba mu neex. mais tay nak euh, dañu am kan gu spécial muy assumbay di madame euh di commerçante parce que mu ngi euh bu ñe commerçante rek bu ne xam ci jënd ak jay la assu mm. ziarar na la. am na jox kàddu di wat bii paa comme yow tay yaay suñu invité. tey daane ko ci yow lañuy décortiquer tay lu baree bare lu xamantene ni euh ci li ngay yëngu bëggoon nañu xam assu ci lan ngay yëngu. ma ngi delloo ziar. Mm-hmm. di contentane bu baax. man ma ngi yëngu ci mirum jënd ak Hmm. jeun lay jaay jeun ngay jaay ma ngi jaay jeun fi massa hmm waye yi nak ndiam jeun bi nday mareem hmm. doy na wa trop hmm. doy na wa trop ndax dëkk bi da na a dëgër goo xam ne jeeg li mun a tun ko dëgg la ki nan jeun léegi 5000 jeun hmm mo tu jeun cinq 5000 jeun 2000 mille jën wala 2500 mille dëkk bi da dëgër na dëgër go xam ne marché bi mom suma na le neex na léegi damay wax lu ma neex déedéet marché bi mom waaye fépp la méttee. suñu fan yi moom lu ñuy wooyee. Hmm. macha allah mett na trop. déedéet kay. ndax jën yi seer na. Hmm. ndugg seer na soble seer na lépp seer na. Hmm. ndax bu ne ceebu jën dañ jën bu baax. ak ndugg mu baax. dëgg la te lépp a seer. kër yi tamit amatul dara. ndax lu waaye mënoon mënoo toog li ma la wax sànq rek. ki daan jënd jënd 3000 léegi 1500 lay jënd wala 1250. jéggal dëkk bi moo métti. xaalis amul xaalis amul lépp seer na. Mm-hmm. tey dem ba day sa suñu côté da ngay indi keesu jënd war kaa benn fan. Mm-hmm. tut ñetti fan nga koy jaay. ndax dëkk bu dëgër. dëkk bi dëgër na. jënu fiiri nag moom waxaale wu ma ko. ak ni ko ko bëggee woon. jënu fiiri moom waxaale wu ma ndax soble seer na. pomme de terre seer na pomme de na. duulin yokku duulin yokku. Mm-hmm. jéggi moo dunoo fiiri déggal li 4 tonnes jënd fii di nga ko jaay ñaari fan. xam nga loolu doy na waar. doy na waar métti na na trop métti na métti na trop comme ni mu ko waxee ah suñu mbokku téléspectateurs yi ah suñu mbokku yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci TikTok bi ak YouTube bi ñu suivre tey fii la ñu fël leen. li ñu leen di wax rek émission Sëyu Jeeg ji dafa ñëw ci beneen anam maanaam boo déggee mu ñëw ci beneen anam dañ daan ñëw di expliquer di waxtaan ci suñu wàllum sëy mais léegi nag dañoo dépassé foofu. garaat yi mooy gën a yokk si sama yaa léegi dañuy invité ay commerçante maanaam képp kuy nekk euh, jigéen rek ak ci loo mën a nekk di ci yëngu rek léegi ci loolu la ñuy dugg di ci waxtaan en même temps aussi tamit du ñu fàtte kër yi de. du ñu fàtte kër yi waaw dañ ko ciy cabaxal dañ ko ciy cabaxal de waaw dañuy dugg ci kër yi. Mm-hmm, xool jafe-jafe jafe-jafe yi kër gi. Mm-hmm. parce que am na jigéen ñoo xamante ne maya dañuy bëgg di liggéey mais seen jëkkër yi du ñu nangu. foofu yëpp dañ fiy dugg dañ ñuy xaar tamit ci yooyu. Mm-hmm. affaire ah ay ci système maya comme li suñu invité bi wax. nee na jën yi metti na jaay bi metti na cher na niñ daan jaayee jaayeetul lu mel waa dund bi nag dafa metti yombul. Mhm. Ah, rawatina eh, kiy jaay mais tamit gën na metti ci kiy jënd. Mhm. parce que tey jii nii jéeg bu yoree peña marché bëgg a dem marché bëgg na bégal waa këram yëpp. goroom kontaan jëkkëram tamit lekk kontaan. Mhm. donc nag bu ñëwee fekk marché bi lépp cher du ci kiy jaay. moom tamit du ci moom foot bi lan la yëfi moo yokk te Sénégal instant bi nag ñoo toll foo xam ne wàññi bi ci làmmañ la yam mm. wàññi nañ wàññi nañ mais lu lu ñuy jëfee te dadul demee noonu te loolu sax ñaari fan ñett lañ koy appliqué waaw des fois da ngay gis jéeg bu yore pañe marché bi di wër ci marché bi pendant 30 minutes du xam lu muy jënd mm-hmm. ndeysaanam parce que lañ koy jox mënu koo xeeb te mënul wax doyu ko mais day dem ak sagam mu ñëw bëgg a jënd jën yu baax bëgg a togg ceeb bu neex comme nu ko Asou waxee. Mm-hmm. ceeb bu neex jën moo koy togg. tey jën yi boo amee sa jën bu baax ak sa géej ji bu baax boo amul légume sax ceeb ba day neex. Mm-hmm. jën ya na bees rek te baax. mais tey jii nii soo ñëwee fekk jën yi cher. Mm-hmm. tey jii boo bëggee togg reer fii day métti. nga ñëw ñu ne ñun la saamu jën 1000 francs nga yore 3000 francs nga war cee togg añ ak war nga togg añ bi rek moom 3000 mënu ko. doo xam nooy def donc nit ñi bëgg nañoo liggéey. yàlla bu ñëw këru famille këru famille. day xaw a métti day mm-hmm. xaw a métti donc bëgg nañuy bégal seen waa kër ñiy jaay tamit bëgg nañu satisfaire seeni clients mm-hmm. Mm-hmm. mais ca fañ koy jëlee la mm-hmm. mooy foofu lay chéré parfois nag clients yi dañuy am compréhension boobu. que ne euh, jaaykat bi bëgg na lay satisfaire ba bu ëllëgee nga ñëwaat mais da ngay comprendre fa nga koy jëlee mais dafa am question bu ma bëgg a laaj asu. moom mi nga xam ne mooy suñu invité. te day dugg ci jaay ak jënd. waaw te comme ne dañuy jéegu sëy yi dañu bëgg dañoo bëggoon a xam asu njaay mi ak sa kër. ak sa jëkkër ak say njaboot yow nan nga koy cumuler tay yow nan nga koy gérer. waaw ma yaa lool kontaan naa si. man njaay mi terewuma gérer sama sëy ndax man 4 heures du matin laay xëy. su ma xëyee 4 heures maa ngi wàcc 2 heures su ma wàccee 2 heures defar sama kër ba mu set sangu ba set xëy sama lu neex soo sama yére baax. bëgg naa lool. naa toppatoo samay doom. bu sama jëkkër wàccee naa ko toppatoo. man njaay mi yàqu sama sëy dara lu ma war def sama sëy dama koy def sama sëy njaay mi moom mayaa yàqu sama sëy dara foofu moom sa xol sedd guy. Mhm. sëy bi ni ma ko war a sëyee. maa ngi koy normal. bëgg naa loolu maa normal ko seere ba lu si war nga def ci sëy bi. bëgg mi yàqu ci dara. jaay mi yàqu ci dara ak euh, foofu mu daanalee fa laa yëkkatiwaatee par rapport ak euh, li nga wax léegi léegi njaay mi dérangé wu la njaay mi yàqul ci sa sëy dara mais damay dégg ñu naan jaaykatu jën yi li ñuy def ci bi fajar gi maanaam comme nee nga 4 heures tee nga yeewu xëy. booy xëy ci marché bi ngay jaayee nga jëm ba dafa am beneen marché booy xëy ak coono boobu parce que damay dégg ñaan jaaykatu jën yi fajar gi bu ñuy xëy di dem dem euh, wuti ji jën. Hmm. coono bi ñuy am. coono bi ñuy daj foofu ñëwaatal moo fa tuuti. nday ma dem loolu ba maslaa yi dama siy hmm. na torop. Hmm. ndax quatre heures la ñu yeew. dem marché central. bu dem nañ yaraax. bu ñu demul yaraax dem nañ keeba. keeba mooy fa keeba mooy. yoof boo déedéet du yoof. boo jéggee. kii bi boo jéggee pont bi. pont bi pont boo ko jéggee. boo jéggee pont bi waaw mooy fi ñuy yaree maam xuuxi. ok mooy fi ñu yaree maam xuuxi noonu. Ah, foofu mooy keeba mhm. ku demul keeba dem yaraax wala nga dem Massa. njaayam mhm. jën dafa métti trop. Mhm. metti na ba fu métti yam waaye loo tàmm sa liggéey la. sa liggéey la nit ki bu tàmmee liggéeyam. lu metti métti da koy seere lu metti metti dama koy gérer. lu nee na moom asumay daf koy gérer mu ñëwaat ba tey rek ci asumay mooy li nga xamante ne nii ñu ngi wax naan dëkk bi am na sécurité wala amul sécurité yéen war ngeen ci mën a xam dara parce que heure bi ngeen di xëy mooy problème bi. Mm. ndax yow euh, bi nga tàmbali ci njaayam jën bi ba tey ndax problème boobu mën na la ci yoon bi nangu li nga yor wala affaire yooyu. déedéet loolu moom ba ma commencé jaay ba dalaguma. mosagula dal mosaguma dal. Mm-hmm. ndax man oto bi may jënd sama bundu kër lay gaare. ok. ñun daa am oto bu ñu jël si. ñun quatre personnes lan am na taxi bi ñu jël si sama bundu su ñëwee daf may woo ne ma maa ngi si suuf. su ma paree wàcc mu jël samay moroom ñu dem. wax dëgg yàlla ba ma dalee jaay ba léegi loolu moom dalagu ma si. kon Maya dégg nga li suñu invité bi wax. Mm-hmm. mosu koo dal kon moom ci côté xëy na mosu koo dal mais am na ñu muy dal ñu ci bëri ñu xamante ne da leen di dal ba tax ñu naa sécurité bi doyul. waaw waaw euh, foofu noonu tamit mhm. am na solo parce que euh, man su ma gisee moom li mu def nii sooraale na sécurité am tey mhm. te xam na ni lii muy liggéey ci lay suturlu te moo ko tax mu mel ni mu mel macha allah euh, donc nag booy liggéey tey xaas boobu ngay liggéey yow yaa ko mën a liggéey mais mënul la liggéey comme li mu def nii ñu jël taxi moom ak ay moromam mhm. ñu bokk ko am na ñoo xamante ne loolu xalaatuñ ko dañuy préféré di dox man jàpp naa ni ñuy dogaale heure boobu tamit parfois ci seen faute lay doon parce que tay jii nii doo yore versement lu mat cinq cent mille quarante jëm kaw mhm. nga yor dox ak mom mhm. da ngay wut taxi ngeen bokk bokk la même sax bo amul ko bokal na la jaral mais yaa tamit am na ñoo xamante ne même boo luyee taxi ci taxi bi lañ lay fekk mais lo ñew comme ki ni ko waxee ko mhm. xamantene ne dalaa fekk ci ba sa buntu kër nga wacc rek dugg mu yéegal verre yi tay jooju man japp naa ne taxi boobu noonu peut-être mënuñu koo dogaale. dëgg la waaw mm-hmm. dëgguma la. Mm-hmm. dafay am. Mm-hmm. ndax taxi taximaane ah, agresseur yi boo taxawee wax teggi sa tànk rek buñ gisee nga yor portable nga yor sa sa sokos mi ngay xëyee. dañuy fëgg këf li nga yor. am na. agresseur yi ñoom amul taxi amul super. ñoom ñoom fépp la ñuy jaar. ndax dañuy taxaw ni ci télé bi sax boo taximaan bi teggee rek bu nu gees sëggee nga yor saag. wala sa téléphone lamb bi tàkk rek ubbi na buntu ba këf li nga yor. dañuy kon loolu gis naa pour benn dinaar. waaw ba pare ñoom dañuy xam ne eh, ñiy jug heure boobu. waaw dañuy yoraale xaalis. parce que kii dem di jënd kii dem di jënd day yor day yor xaalis. xam nga lu ma métti ci foofu en tant que jigéen sa sul ci kenn jug takk sërëm takk ndigam maanaam jug di daan dooleem xëy heure boobu yor la nga xamante moom lay suturaal li ma nga nangu ko. ma yaa kooku xanaa amul yaay. agresseur amul xol xanaa ko amul xol. agresseur amul xol. Mm-hmm. yow loolu ngay sóoraale di ko calculer. calculé wu ko. Mm-hmm. calculé ko xool loolu moom la mu bëgg la gis. moom na li ci pochette bi na ko yor xëy dem jënd si lu mu màndi lu mu kii pare na ci. Mm-hmm. moom loolu la gis mais kii jigéen la day dem ñoom loolu calculé wuñu ko. bokkul sax ci seen maay doxewuñu ko. loolu mooy wax bi. parce def ko tu ñaawteef. du xalaat. du xalaat du xalaat luñ naan taala du xalaat waaye def ko du ñaaw te du xalaat <laughs> ñoom du ñu xalaat de yow la ngay interpréter amuñu xalaat kaay ñoom leen am la la ñuy xalaat. Mm-hmm. nan la ñu mën a missionné ba këf li nga yor ak nan la ñu mënee teg stratégie ba ñëw jël këf rek daw te. kenn du leen jàpp. danoo gaaw nag macha allah mais comme kii nii li mu wax loolu idée la tamit. Uh-huh. des fois nga luyee jël koo xamante ni moo lay gis parce que heure boobu dafa xaw a danse ñii dox bëriwul. loolu tamit même sax bu fekkee dinañ la ko def mën nga cee mucc. ci lu bari moo gën nga taxaw di xaar oto pour nga upp ko mu yóbbu la. Mm. wala ngay dox di dabu ji benn kii. foofu noonu lu nekk mën na la faa mën na la faa kii donc nag may ñaax ñi nga xam ni dañuy jug ay 4 heures 3 heures dem di liggéeyi. Mm. ñu def comme kii ñuy abonné ci taxi wala koo xamante ni dina leen jël si weer bu dee nga fay ko. nga fay ko moo ci tane waaye ma ñëwaat ba tey ci sama invité bi euh, Astou Mbaye fi may duggaatee ak yow mooy Astou Mbaye ni ngay nekkee ci marché sa comportement ak ñi nga taxalool say table. sa comportement ak say client mhm. bëgg naa nga duggaat ma foofu. waaw sama client moom macha allah. ñu mhm. ma dend tamit macha allah ma su ma nekkee macha maa ngi kaf maa ngi ree. samay client bu ñëwee ma ngi leen chéri kooku chéri loo bëgg. Mhm. wax ma loo bëgg chéri kafal ñoom reetaan ñoom ba am li ma bëgg si ñoom. ndax booy jaay tamit faa ko ndax taal ak di kafal client di reetaan ak client yi mhm. pour nga am si ñoom dara ndax jën bagage sax lu mu seer seer seer mhm. soo ko bëggee jaay faa nga naxtaan ak ki ngay jaay soo naxtaan ak ki ngay jaay doo mën a jël lim moom mhm. kon kat bi ak jaaykat bi dana war a bokk ndey at baay di diisoo di waxtaan man moom sama njaay moom macha allah dëgg yàlla naa kafal samay client naa la dal samay client marché ba naa ambiance ba mu neex ñi ma dendal mooy yoon sax may ambiance ba mu neex dëgg yàlla no problème marché sam marché no problème dañuy gaf dañuy ree suñu jaay dañuy bëggee bu jaay dañuy bëggee bu ngeen jaay dañuy bëggee bu loo mayee jaay xamante na la waaw su la mañu jaay xam nga tey mañu la jaay. ku ci nekk sa wërsëg ngay lekk ku ci nekk sa wërsëg ngay lekk. jaay kon ñàkk jaay ba daa tax ñu bañ a bëggee. ak a leer man asuma damay bëggee. ak a leer dégg naa dëgg moom asuma day bëggee même man mi sax damay bëggee waaye dañuy bëggee ñun ñëpp dañuy bëggee. dañuy bëggee ba tey ma diwaat ci yow asuma mooy li nga xamante ne nii mooy seen mbàllum jaay xaalis bi ngeen di jaay. natt la bu ngeen di teggi dugal ko ci wala soit yéen da ngeen di am problème mu xaalis dem ci marché central bi nga xamante ne ni moom moo nekk Pikine wala ci kee euh, bi comme ni nga ko waxee sànq wala yaraax euh, bu ngeen di dem ñooñu des fois du ñàkk des fois ngeen am ay problème mu xaalis mhm. dem ñu lebal leen ay jën ñu jox leen bu ngeen paree ngeen fay wala loolu du ci am ci njaay bi mhm. loolu su ma nee amu si maa ngi wax lu ma leex dëgg la ndax sa jur ma la sa yëfu bopp mënul nekk mënul nekk ndax mën nañoo tegg nit ba matal lépp mën nañoo teg nag tey trois cent mille wala deux cent mille. Mm-hmm. balaa balaa vingt jours xaas ba day diig. ndax njaay mu jarul day indi diig. day indi diig ak aleer. kon ñun waa Mar ñun suñu càmm ña fa nekk. Mm-hmm. suñu ñàkk dañ ñuy lebal. Mm-hmm. suñu jaayee dem versé man nii ma wax yow ni fii ma toogee nii. jën yi ma jaay démb dama koo leb versé gu ma ko. versé suba jàmm su demee laa koy versé. su amee ma jëlaat. wax ci ma ko wessé ba mais ma jëla su amul ma xol moromam lim am su ma ko bëggé ma jël ko mais moromam bobu est ce que bo démé mom dina la nangul la waaw man ma central mom ma sha Allah hmm waaw nak ma invité eh, ma tok di wax deug la ta ci télé bi nga waxé ya, ñi ngi jakarlo ya, ak yow télé bi la tim ma central aw hmm. ma fa sens oh, interdit hmm. kuma lepp dang may lebal da nga am jom fay kuma lepp dang may lebal su ma xé dama lay fay ak alé wala ma dafa am ya. Hmm. ah kay hmm ay ma dala tudjon ma jaay su ma dama lay fay dëgg la nag diig du am. Mhm. diig du ñàkk. du ñàkk ndax yenn saa yi mën ngaa jaay diig mën ngaa jaay pett. Mhm. soo demee jox ko li nga yor waxtaan ak moom. Mhm. ko maanaam feet fan ma liggéey waat fayaat la. ñoom itam duñ ko bañ dañu koy nangul. dañu dëkk bi lu mu tëddee ñëpp ko xam. dëgg dëkk bi. góor xam na ko jigéen xam na ko. képp kuy liggéey xam nga méttiwaay dëkk bi. dëgg la ak a te wootuma nay ma ne nag temps yi jën jarut. jarut yi moom. jën jarut ndax li ma la wax sànq dëkk bi dafa metti équipe dafa dëgër. Mm-hmm. lépp a dëgër. dëkk bee métti. da nga naan jënd keesu jën ko benn fan. kes mm-hmm. keesu jën ñetti fan ñu koy jaay. léegi yow boo xëyee war a génne war a mottali wala natt. Mm-hmm. wala def say fere boo amul bénéfice xaas jàmm ngay fere. dëgg la te xaas jàmm boo la mooy xaas borom jëndi. suñu xëy ñu tamit da ngay dem fay soo matul nga ne mu ne bu saa soo amaatee ñoo doole la. moo dama mu ñor la loolu. waaye su ma nee suñu xaas boobu kese la liggéey. maa ngi wax lu ma neex. borom jën nag jàpp nañ si. macha allah jàpp nañ si macha jën yi jàpp nañ ci ba tey damay ñëwaat ci yow ah ba tey rek ci yow laa jëmata parce que damay dégg naa am na benn période boo ci tooloo jën du am. dëgg la soit tàngoor lay nekk wala bi. sedd moom jën day am. seddaay jën day am. seddaay moom ah, jën dama daan bu seddee kat am mool yi dañuy ragal a dugg wala. ah, ah sedd moom. sedd lu muy ñàkk jën bëriwut. seddaay bi lu muy ñàkk jën bëriwut. lu muy ñàkk jën bëriwut moom a dëgg. tàngoor bi tàngoor bi tamit jën daal xam nga mooy li fa bukki la yëfi bukki la ndax géej gi bu amee jën am. géej gi bu bu diigee jën du am. Mhm. noonu daal la. même koor geeg. nawet bi yëpp waaw nawet nawet moom bi lu muy am bariwut. nawet bi lu waral loolu. xam naa affaire nawet xam nga nawet moom. ndox mi taw bee du yooyu ñu bari bi taw taw met duñ dugg ba ngarawee nit ñi duñ ñeme dugg si géej gi. dëgg ah, la danger la danger bu rëy la mhm. mais Maya li ma jaaxal ci jaaykatu jën yi. parce que ma dégg mën a takk or. dañoo mën a sañse waaye a yàq ah, macha allah nit ki moom da liggéey liggéey moom nga am. ci boo génnee say nawle mën laa gis ñu xam ne kat kii lu liggéey lii mooy njariñ ci moom bii côté man moom loolu ànd naa ceeg moom dañuy defal ba mu baax. moom ànd naa ceeg yéen. bëgg xew mën a takk or xoolal ma kii dem sañse ci waaw loolu moom ànd naa seeg ñoom waaw Ndeye Marème loolu ànd naa see yow moom moo dëgg yàlla danoo bëgg sañse bëgg suñu bopp dëgg la buñ amee xew kenn nangoo jël chaise ginnaaw ak a leer ndax jéeg warul nangoo jël yàgg naa ñëw seen xew su sumaan day joxe quatre mhm. dëgg yàlla nangu dañoo liggéey waaye nangu dañoo sañse nag ak a leer <laughs> waaye dégg naa ñu ne jàkkati dañoo bari histoire ah histoire bari que ne. ah dégg naa ko de dégg naa ko de moom li ma wax nag de Marie Ngom wax na ma ko fii démb. Hmm. te man lay ma dem jaay ko ci jënd dañoo bari histoire. yow nag yaay tontu yaay setaan. bëriwul histoire dañuy kaf rek dañuy kaf rek. bañ ku leen yab bañ ku ñu rek. ak a kaf na waa bëgguñu ku ñu yab nag. Hmm. na nit ki ne fa ngay liggéey foofu nga dëgg la loolu rek la waaye bëriwul histoire rek. Ah, ah, ah kon Marie daa juum Ngom de moo ne ma jaay. Marie daa juum Marie histoire. Marie xamul ne ma nga def su may ba xam ah, kon Marie yaa ko dégg. na ngi ma nee jaay ko ci jëli kaf dong la. bariwuñu histoire mais dañuy a ku leen yem. Mm-hmm. yaakaar naa ni moom. ñun loolu moom am na waaw nit ku nekk moom ci la ngay jaay li ñu naan fulaay jaay Dakar. sinon ña may ma ma ñam dina ko jeexal. <laughs> man ma may ma ma <laughs> euh, jaayum jën. jën dafa xaw a sëcc. Uh-huh. dafa metti tey jii nii nga yendu ci di yëkkati di teg muy takk ci sa yére ngay fompo euh, nga war a dem sa kër. te tey jii jigéen buy jaay jën. Uh-huh. ci sama sama xalaat bu gàtt dafa war a farlu. Uh-huh. yow tey jii nan nga koy dundee nga wàcc war a raxasu bañ sëcc boobu topp la bañ a dugg ak moom sa néeg te xetu jën dafa sob waasin tóor yi mën nga sax wàcc mu taq la te doo ko gis mu topp ak yow ba sa néeg yéen loolu nan ngeen koy gérer. Mhm. waaw Maya loolu nga ma laaj kontaan naa mhm. salte bind la salte bind la mhm. mën ngaa jaay jën te doo salte mën ngaa jaay orange ak salte salte bind la man damay jaay jën keneen keneen day jaay jën waaye wax dëgg yàlla man jaay jaay jën bi. man saltew ma si xeeñu ma si. ku ma rombee sax doo ñeme ne la wane nga ci plateau. su ma rombee bu dul plateau bi sax. Mm-hmm. su ma wàccee ba sangu ba set ba romb la. doo ma sañ ne ma kii jën lay jaay. wala nga fekk leen ci seeni xew. waaw déedéet doo mm-hmm. kon sàdd kon bind la. Mm-hmm. du jaay jën du jaay géej du jaay mante du jaay orange am na loo xam ne dafa salte bind la salte bind la. salte bind a man de damay jaajëfal waaye salte wu ma. tere laa toog de. barke Serigne Saliou Mbacké. damay wàcc sangu ba set. defar sama kër ba mu set. defar sama néeg ba mu set. ba ku ñëw ku fëgg ma ubbil la doo sañee ne kii jën lay jaay. man asamaay. Mhm. te gis naa ne sama moroom jàkk jën yu bari. ku dem ku dem seen kër tamit ni may def ngay def. kenn salte wu si man gisuma man ma lay a ba tey gisuma jàkk jën ba salte salte mais yaa bind la rek. waaw bëggoon naa mu leeral côté boobu parce que loolu li liñ ciy faral di wax dafa bëri waa comme lim ni salte bind la dëgg la bind la parfois da dangay da ngay gis jaaykatu jën boo xamante ne mun doo ko fekk marché muy jaay jën mais boo duggee këram rek automatiquement da nga naan kii jën lay jaay wala wala wankatu jën la tellement que xet gi mais comme fi nga ko waxee rek salte moom ci bind la waaw foofu rek point boobu laa bëggoon rek mu leeral ko euh, tamit ma bëggoon ñëw si wàllum ni ngay gérer sa kër boo wàccee nooy accueillir madame feem yi. ñu ñëw ci wàllum baax baax yi tuuti wax oh, man bu bëgg waxum jeeg boo mm. ñëwee boo sangoo ba pare defar sa néeg. nan ngay harmoniser kër gi yow xam nga heure bi muy wàcc yaa koy jiitu ca kër ga nooy harmoniser kër ga ba bu ñëwee ci suuf xel gi di dal wax ñu ko ñëwal ci si tuuti. ah kontaan na. Mm. wax dëgg yàlla. sama allah da njaay jaata moom. Mhm. macha allah lu jigéen wala dafa góor maa ngi koy defal. macha allah su wàccee. dina mhm. fekk kër ku set. Mhm. fekk fa néeg bu xeeñ neex fekk fa saal bu xeeñ cuuraay. ñaf ndax li ma la wax sànq rek jaay jën taxu ma baay sama sëy damay xëy jaay sama jën wàcc gérer sama sëy sama sëy lu ma laaj dama koy def. sama sëy bu laajee bañ a xëy sax ma yeewu fajar moo mënu maa jug. pour prenez note ma yeewu fajar sax sama sëy ne ma bul xëy damay toog. ndax mhm. nag sëy bee ma gën a njaay mi de. sëy bii. Mhm. moo ma gën a njaay mi. sama njaay jaatamee su ma bàyyi woon dama mën a liggéey de. su ne woon toogal toppatoo ma soxla ma njaay damay toog toppatoo ko nag daf maa bàyyi ma jaay. noonu ma bàyyi ma jaay moom su wàccee guddi noonu laa ko toppatoo daraam tardé wut bëgg naa loolu ak yonent bi suba liggéey bu ngoonee ngeen daje bu ñëwee vraiment nga pare <laughs> bëgg naa loolu daal bëgg naa jéeg bu prêté préparé wul man moom laay war jéeg bu pare man moom moom laay def sama coach yaay sama coach mm-hmm. jël naa lépp yaay sama coach dëgg neexul voilà ba tey nag ñu ngi ci njeexantalu émission bi damay wax rek sama table bu yànj bii may sama sponsor bopp <laughs> mayaa di ma ci jàppale ku ci bëgg ci xeetu baax baax yi rek maa koy jaay mm-hmm. ku ko bëgg rek contacteel sama numéro 77 621 13 55 ah maya looy tàggatoo daa mel ne ko wax euh, waxtu bi moo ñu moo xoj. Mm-hmm. di duuf ci nag bi yëpp ci cin bi. di kontaanati rek vraiment di di di kontaanati ci sëyu jeeg yow tamit ma remercier bu baax a baax a mm-hmm. ah, ku ñàkk ki ñaan nga ma remercier bu baax. Mm-hmm. Ah, di leen wax ne nii lay demee saa su nekk gis ngeen table ji ni mu yànjee comme ni mu leen ko waxee rek lépp mu ngi fi bu neex. parfum chambre parfum bu nga xamante ni koy parfum bëgg a bëggal sa jëkkër même huile de massage ndey mareem mu teg la ci kot ba wax la sax boo koy maase noo koy maasee eh, moo ngi noonu dama bëgg ngeen contacter ko gaaw te dañoo nekk si période seddaay dafa mm-hmm. sedd mm-hmm. période seddaay lañ nekk de jéeg ji dama bëgg ngeen jugaat mm-hmm. defaraat seen cumbukaay changer seen garde robe de nuisette surtout changer garde-robe nuy jet bëgg naa loolu ci année bu bees bi ci seddaay bi ñuy dugg te dama bëgg ngeen contacter kii mooy sa gisoo leen ma temps yi nii moo ma yor mooy sama coach contacter leen ko du ngeen di ngeen kontaan ci seen biir néegu say Aïcha ma leen di uh-huh. nuyu di leen siyaar yéen ñëpp di leen wax amoon nañ contentement bu baax a baax euh, di leen présenter seen émission sëy jéeg gi euh, célibataire bi nga xamante ni mooy jox conseil marié yi mi ngi noonu <laughs> Aïcha merci beaucoup sister Maya ñun ñoo la gën a kontaan ah. mm-hmm. kontaan contentement bu baax di bokk ak yow euh, palaato xale bu ñu sol yàpp mag la nag moo ngi noonu ay <laughs> ca sama invité bi Astou Mbaye madame Ndiaye looy tàggatoowee waaw maa ngi tàggoo di kontaan si émission bi ngeen ma dalal tey mhm. kontaan naa trop di ñëw na sëyu jeeg ji kon jeeg ji nag ñoo ko gisandoo waaw ah, kay génn leen ngeen defar sëy yu neeg mu neex ngeen toppatoo alaaji yi mhm. macha allah di gërëm na sama jëkkër Moussa Ndiaye alaaji mor alaaji mor nyaay ma ngi lay keureum ndax lepp luma man na mom. la de. deug la mm. lepp luma man mën rek sama mor nyaay mom la. suñu chéri bi ñu ngi lay nuyu sama chéri ko xob boobu nak suñu lu ci dara. wax dëgg mm-hmm. ma sha allah sha allah. su xéta day jukti di ko ngi dëggal li taxaw ba man jël taxi bi ña ma dugg. Mm-hmm. mu duggaat. c'est l'amour kon moor maa ngi lay gërëm. di la di keureum ñep di keureum na sama wa masse masse Sam masse Sam maa ngi keureum yéen ñëpp ku lim juum gërëm naa leen yéen ñëpp. kontaan naa Ndeye Marème. Mhm. tey sama xol seet no ko damaa kontaan. macha allah kontaan kër la. macha allah émission bi neex na. kontaan naa jërë ngeen jëf. sant ak ngërëm ñeel na la Astou Mbaye madame Ndiaye ñun tamit kontaan nañu ci disponibilité bi macha allah dañ laa woo rek nga yombalal ñu ko te mënoon ngaa xëccantoog ñun tuuti rek comme ni ko may euh, Marie Ngom di defee des fois. mu xëcc ko mu lànk mais ñu ngi sant bu baax a baax suñu mbokku téléspectateur Louga TV yëpp ah di sant euh, Alassane ah Alassane Ndoye dit pétin célibataire bu ci kër gi ah. bu mag bi <laughs> nag tonton euh, Pape.

Ciao. Bisous,